ci bésu ashura maanaam suñu tamxarite ba ci ëllëg sa la waa axlulaahi di daal di dem ca nga jaga ca diwaanu malika ngir fàttaliku ñetti fanu gàddaay yi fa seydina limaamul mahdi di salaatu wassalaam daal di amaloon loolu nag xewoon ci atum 1887 ginnaaw bi woote bi amee ñetti at ndigalal gàddaay loolu mu jot nag ànd na ca ak ñeenti saaba seen wayjur wi ñu fekk si tey Cerno Saar Coom ca la bokk Aali Baay ngir fësal taxawaay saabu yooyu la ab délégation bu Seyna Mandione Thiaw Lahi daal di jiite dem na ci Cambérène ak ci Yoff nemmeeku seeni njaboot. Le vénéré Thierno Sarr Thion choisi comme le parrain du pèlerinage de cette année. ba noonu nag lañ di siiwalee ne njabootu Thierno Sarr Thion la ñu daal di bàyyale xew-xew ren bi. war nañu xam mooy kan. war nañu xañ ràññee seen njaboot war nañu ràññee seen taxawaay ci dina ji ba l'histoire bu Laayeen sama maam Cerno nekk ci biir du rekk lu ñuy firi jàll waaye dafay des ci dans les loolu moo tax bu ñu toogee waxtaan ñu ni góor yàlla yooyu nga xam te ni kenn ñoo àndoon ak Seydina Limaam alayhi salaatu wa salaam fexe ba dem seeti leen seeti seen njaboot. bismillahi rahmaani rahim looloo tax nag Adama Thiom mi nga xamante ne surtout Thierno Sarr Thiom la mu daal di fësal ci ay kàddoom relation yi am ci diggante Seydina Limamou Mahdi alayhi salaatu wassalaam ak maamam mu nekkoon nag diggante bu ratax lool bu tàmbali woon na laata woote bi. bu ñëw fekk Seydina Limamou ci diggante ak kii am yàlla mu ne ko Thierno ñëw naa la mu ne ko waaw mu ne ko ah gannaaw yàlla kon day yàlla laxu ma Thierno ñëw naa ba mu ñett yoon mu ne ko kon day yàlla laxu ma sama maam génne yére ne ko waaw léegi jot na nag kon jiw sol ah tey tey yére mu ne ko baax na jël yére ya sol ba mu jëlee yére ya sol ne ko Thierno ama ah, solal mu ne ko waaw Thierno dina ma ñaan ma boroom mu may la lu mu musul a may kenn tey def na ko lu tax mu def ko mooy sanga bi bi bàyyi daay demee en 1909 sama am Seydi ak ku mu wéte ak ku bëgg a soxla bàyyi daay da ngay ñëw ci sama maam ne dama soxla seen i maam mu toogal idée yoo <laughs> toogal idée yoo nga toog mu wax ak seen i maam mu tontu. ci tukki na meeku boobu la daal dina ñëw tamit taxawaayu Demba Mbaye Ali Mbaye ak Abdoulaye Samb. lii ba penc ma foofu mooy euh, coomeen boo avancé nga ñëw li ko dalee fii. fii ba taliba mooy woon Mbaye kii nii suñu gannaaw nii kii surtout Ali Mbaye lépp nag ngir jox Ngédiaga gëdd bi nga xamante ne moom la daal di am ci diina ji li ñu fi seet si gis nañu ko doy nañu rafet na baax na yàlla yàlla jàppale